salaamaaleykum mbokk auditeurs yi mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi suivre 7TV euh, à travers mbond bi à travers Sénégal ñu ñëwoon fii ci gàmmu gi gàmmuwaat gi doon ziyaare si xalifa Léona Niassène ah, daje feek ñoom ñu rafetlu bu baax a baax daje bi ñu fi daje ak ñoom man Pape Matar Sow président de Sénégalais de la Turquie président fédération des sénégalais de la Turquie ah ñuy leen di ndokkeelaat ci gàmmu gi bu baax a baax a baax waaye it di ñaan yàlla lépp loo xam ne luñ fi jaamu la yàlla na ko suñ borom nangu xanaa doon waxaat tuuti rek ci li nga xam ne moom mooy waraloon suñu ziyaar ak moom ak doon sàkku ñaan ci moom di xalifa Léona Niassène bi nga xam ne suñu borom dogal na mu nekk ko ñu indiloon ko nuyu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk turk waaye doon ko indilit sàkku ñaanu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk turki ku ne xam na ne sénégalais ya nekk turki jafe-jafe yi fay dund bëri na te métti na réew moo xam ne la nekk ci ay sénégalais ci ay kaso kenn xamut nu mu toll réew moo xam ne bëri na sénégalais yoo xam ne nanguwuñoo génn seen kër yi ndax jafe-jafe carte séjour waaye réew moo xam ne bëri na sénégalais yoo xam ne nanguwuñoo faju ji ndax feebar faju fa dafa cher loolu yëpp nag boo ko boolee nga xam ne jamono bu nekk ñu ngi koy jooy ci suñu état yi di ko jàmbat di ko wax ngir ñu xool taxawaayu diggante Sénégal ak Turc bokk na tey ci li tax ñu ñëwoon doon sàkkuwaat ci moom ñaan pour bu ko mënee eggale ñi nga xam ne ñooy kilifa réew mi mu jàppale ci doomu sénégalais yi nga xam ne ñu nga nekk ca Turc waaye it ñu sàkku ci ñaan ndax ku ne xam na ne maamam boroomu ñaan la yaakaar nañ ko yaakaar na yàlla yaakaar na Cheikh na Ahmed Tidiane kon nag dafay foo xam ne bu buñ fi ñëwee war nañ fee ñëw looloo taxoon ñu ñëw fi doon fi sàkku ñaan ci moom far ñu daje fekk waa 7TV di ñaan yàlla lépp loo xam ne ñaanal na ko sénégalais ya nekk turki yàlla na ko suñ borom nangu waaye nag muy réew moo xam ne it dinañ ci jaare ñaan lancer appel état du Sénégal di wax président son excellence Diomaye mu xam ne doomu sénégalais yi nga xam ne ña nga nekk ca turki jafe-jafe yi ñuy dund tar na te métti na sénégalais yaa ngi ci kaso yi sénégalais yu bëri ñi ngi ci seen i kër toog nanguwu ñoo génn ndax permis de séjour te ku génn ñu jàpp la jamono yi ci ginnaaw nag ñu nemmeeku ñu ne fi mu toll ni xale yu jigéen ñi la ñuy jàpp bëri na ay doomu sénégalais yoo xam ne ay soxna lañ ñi ngi ci kaso yi teyit it d'accord mun nañoo nangu ne ñàkk permis de séjour délit la waaye diggante Turquie ak Sénégal relation bi bilatérale yu baax yi ñu am jàpp nañ ne doomu Sénégal yi waruñoo dund boofu jafe-jafe ndax doomu turk yi nekk fii ci Sénégal ñu ngi fiy dund ci seen jàmm amuñ benn problème di fi gañe ay milliards et milliards ci chantier yoo xam ne ñu ngi leen koy jox wala ci ay contrat yoo xam ne Sénégal mi ngi leen ko jox ku ne xam na ne lu mel ni suma aéroport bale ñoo ko àggali tey gare bi nga xam ne moom la train bi di ñëwee ba biir aéroport moo ko àggali centre Abdou Diouf moo ko defar Tosiyali suñu feer yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen i société yoo xam ne mun nañ leen di lim ay limaak ñëpp ku ci nekk ñi ngi yor ay sànce yoo xam ne fii ci réew mi wax dëgg yàlla ñi ngi fi am jàmm kenn bundu xatalu leen kenn indu leen benn jafe-jafe kon jàpp nañ ne doomu sénégalais yi nga xam ne ña ngi ca Turquie it war nañoo mën a am jàmm ca dëkk ba comme ni ko tubaab di waxee comparaison n'est waaye nag am na ci loo xam ne lu jaf lu yomb la waxtaan ci ñaari dëkk yi ba nga xam ne sénégalais dootul am jàmm ci dootul am jafe-jafe ci turc defe naa ne loolu lu yomb la ñu koy lancer appel suñu état yi ndax métti na ay at a ngi nii ay sénégalais ñi ngi kiy jafe-jafe te wax nañ ko fu ne yuuxu nañ ko fu ne ñu bëgg nag son excellence ak son premier ministre Sonko. ñu xool nan lañuy ñuy dimbalee doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk turki ñi ngi santaat bu baax di gërëm waa 7TV di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla àggale suñu wax fa nga xam ne fa la wala àgg te bu fa àggee it yàlla na doon njëriñ asalaamualeykum.